organiser bibliothèque yi ci àdduna si yëpp noonu lañuy ñuy organiser fii euh, ndax bibliothèque mooy ay œuvre ay téere waaye bibliothèque mooy nan la ñuy conserver téere yooyu man nañ koy sàmmee man lañ koy sàmmee ba nga xam ne dana mucc ci lépp loo xam ne dina ko mën a indil euh, yàqu walla luy tax du mën a dox na nga xamante ni la war a doxe gannaaw téere yi mooy li ñuy tuddee salle de lecture mooy fi nga xam ne euh, képp koo xam ne bëgg nga jàng boo dikkee barab bu féex lay doon am nay ventilateur am nay taal banc am na lépp boo dikkee da ngay jaar ci secrétariat bi moom ngay jànloon nii boo dikkee ci secrétariat bi eh, xamle sa bopp étudiant nga wala chercheur nga wala ku bëgg jàng nga ak foo mën a bàyyi ko bu ko defee bu ñu la xamee ba noppi nga wax yow yan fànn nga soxla pour jàng ko ñu indil la fànn yooyu nga dem ci salle de lecture bi lire ba jàng ba noppi boo noppee nga delloo si waat ko ñu delloowaat ko fa mu nekkoon ñi nga xam ne nag dañoo dikk pour def recherche itam ay chercheurs dañ fiy ñëw yu bàyyi ko fu ne. ba ñooñu itam bu ñëwee ñoom itam dafa am nu ñuy doxaleek ñoom.